Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ñu ñëwaat ak yéen rek ci beneen ngëneel bi nga xamante ne comme niñ leen ko junjoon bële passé maanaam dañ ko dañoo amoon yéene may ko suñu mbokku jigéen yi nga xamante ne yàlla dogal nañu mot sey waaye mu jafe lool waaye comme niñ koy waxee rek euh, keroog buggoon nañ ci ñëw waaye yàlla def na temps bi mateew ko moo tax tey incha allah dañuy profité rek ñu teel leen koy jox laata maanaam ñu jàll ci leneen Euh, képp ki nga xamante ne daal jigéen nga mat nga sëy waaye jëkkër jafe la waaye waxuñu nag ki nga xamante ne daanaka mat na sëy waaye kuy ñëw rek muy dàqaate kooku moom waxuñu ko wala koo xamante ne dafay laaj loo xamante ne daanaka ki ko bëgg a takk moyen bi àggul foofu ndax yonent bi dafay wax ne sëy bi nga xamante ne moo gën a neex moo gën a néew can rek sëy boobu mooy ëpp barke donc loolu tamit yéen mbokk jigéen ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ngeen wàññi can yi ngir sëy mun a sëy mun a yomb barke tamit mun a yaatu ci loolu képp koo xamante ne bëgg na loolu yomb ko maanaam sëy ak jëkkër da ut ku bindal yaawa duudu turu yàlla bu ñu woowee yaawa duudu képp ku ko xamul tamit yaakaar naa mos na koo dégg muy turu yàlla bu yéeme bi nga xamante ne képp ku bëgg a bayre ak siiw yomb na dangay bind yaa waduudu quatre cent fois bu bindee yaa waduudu quatre cent fois ñu bindal la tuuru yàlla bi ñuy woowe yaa baduuxu quatre cent fois bu ñu bindee ñaaref bu nekk quatre cent fois nga dem ci alquran am na benn aaya bu ñuy woowe min kulli cheyin xalaqna zawjayna laalakum tazakkarun wa min kulli cheyin xalaqna zawjayna laalakum tazakkarun yàlla mu ne lépp rek loo gis bindal nañ ko couple am lépp loo gis rek dañ ko bind muy paire muy ñaar te góor jigéen la soxla jigéen góor la soxla pour ñu am complémentarité donc wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun loolu ngay bind vingt fois boo ko bindee vingt fois nga dem ci suratul xajji di nga fa fekk aaya bi wa azina fi nnaasi bil xajji yaatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiqin foofu ngay yem loolu ngay bind vingt fois tamit aaya boobu waaye niñ koy bindee mooy boo bindee wa azina fi nnaas bil xajji yatuka rijalan baatu rijalan moom ngay baamu juróom yoon da bind wa azina fi nnaas bil xajji yatuka rijalan rijalan rijalan rijalan rijalan rijalan rijalan ba mu mat juróom-ñaari yoon après nga eggali aaya bi nga yam min kulli fajjin amiqin léegi loolu nag ngay bind vingt fois boo ko bindee vingt fois pare nga boole ko ak ndoxu géej yaa ngi dégg ndoxu géej ngay ut nga nga boole ko ak moom nga ut suukar nga def ko ci ci saafara si nga ut lem nga def ko ci saafara si nga ut parfum bu neex parfum boo xamante ne amul alcool moo xam musc la moo xam zaafaraan la nga def ko ci ak ndoxu zam-zam lii boo ko defee nga boole yépp ci saafara yaa ngi dégg nga sangoo ko pendant vingt jours incha allah da nga gis ko la ñaan loolu amul benn sikk waxuma nag nit ñi di ñëw ngay dajale rek te doo sey waxuñ loolu mais képp koo xamante ne farata moo la sax a jug lii boo ko defee dina gis njëriñ bi te du te du yàgg incha allah ñu jox leen dig daje ci benn yoon rek incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu